mun naa nangu sëy bi te du bëgg waa ji munumaa gëm ni nobel am na fa bu dee takk gi am na mhm. parce que xoola dafa daw laaxatu ji léegi moom nu mu ci génnee rek lay wër moom aji waaw bu dee waa ji mën na koy demal marché tey xam nga tey Adji Sarr bu demee ba Europe mhm. sénégalais yaa ngi mhm. bu gisee ni am na am na yambar mu ko mën a demal marché di ko jëndali jën di ko xel ataaya di ko ñawul di ko lu jil di indi jëkkër ji laa wax de di ko ñawlu jil di indi yaa ngi dégg di ko defal lépp mel ni mbindaanam mais mën na laa may boppam ah. dëgg la mun na kaa fayee boppam càkk gi parce que waa ji tamit mun ta nekk ponkal mu tol noonu di xuutar xuutar si service aji saar mhm. aji di diwee ko tëdd il faut utiliser bu bu fekkee am na nekkul da ko bëgg aussi moom moo tax. waaye day gooma bëgg ko foofu mbëggeel mënu daw làq noo koy takkee koo xam ne day làqatu nan nga koy takkee daaguwul wanu la mbaax. Mhm. amul amul taaw ay nit ñoo ko daan gàddu fuñ ko ruq bu yàggee ñu ruq ñu ruqandi ko foo ko ruq ko feneen. Mhm. léegi yow taa man bu doon man la laa wax de ma bëgg ko. Mm-hmm. dama koy may temps yi temps boo xam ne pour mu lijjantiku li mu lëjal ba pare ma takk. d'accord man daal bu ma ko doon takk. Mm-hmm. sa dinaa ko may juróomi mbedd ci Sénégal yoo xam ne dafay daagu kenn du ko wax dara ma takk. parce que takk sa jabar ba pare dëkk ci dem marché day metti waa ji bu ko mënee tey du ko mën suba de. Mm. gis nga ba pare taar bi nga gis ci aji saar noonu yaram bi di leer. di melax waaw moom waaw boo gisee li nga xamante moom mooy video yi muy dugal. xam nga lan moo ko waral. waaw image bi muy parce que du bouger mënta génn ku xam ne doo gis naaj kay sa yaram day leer am na wala mhm. mais jigéen ñu baax ñi dañuy gis naaj bi di xëccoo ci ci jàllo kër yi di xëccoo ci biti ji. di xëccoo ca ma di mhm. xëccoo ca géej ga mhm. di xëccoo ci fóot ni mais su fekkante ni noonu la ko bëgg a doxalee ah man de man jàpp ma ni ah nit daf ko takk mhm. pour pour sëy rek mais mun nga ko takk pour leneen parce que am na ñoo xam ni moom coow lu ñëw dañ ciy bëgg a bokk ba nga xam ne boo yoree coow sax ñi mën nañ laa takk am na ñoo xam ne ñi nañoo takk ku rey nit ñu fekk la ca kaso ba takk la ndax bëgg tur voilà. dégg loolu man am na koo xam ne dañ ko doon coow fan yële. Mhm. di ko jiiñ ay rey na nit ak reyul nit nit woo ma ne ma dama koo bëgg a may un million ma ne ko yóbbul ko sa bopp. waaw ah, mais loolu du du du encouragement loolu. non loolu sama yoon newu ci. mais moom mën da fekk koo xam ne mu ngi ci mi ngi ci coow lu rëy mu may yónni man. ne bu ko jox. non dafa am ñoo xam ne nit fitna lañ jigéenu fitna lañ bëgg. na nooyeegul nga naan da ngay nekk nanga nangam. wax rek. Mm-hmm. am na ñu xam ne kooku nag tey jii waaj yi ngay wax. Mm-hmm. xëy na ñooñu la rek bëgg a bokk ci coow li ak bëgg bëri. d'accord wax yàlla mais man man de man waxuma ni Adji Sarr nag jigéen la. Mm-hmm. mais dafa am def-def bu bu bu xam ni dañ ko ci tudd ba def-def boobu moo ko taxalee ak jigéenam mais te terewul muy jigéen. d'accord ba pare waa ji bi mu koy takk. Mhm. xanaa waxu ko paa bi ko doon maye bërki dem. ci laa bëggoon ñu ñëw fa waaw. <laughs> waaw ak Khalifa aussi. waaw nee na may na ko Ousmane Sonko moo laa nee na Adji Sarr am na euh, takk nañ ko. loo loolu yow na ko jàngati tamit. waaw xam nga euh, paa bi. waaw eh, moom moo bëgg a gorowoo ak Ousmane Sonko. Hmm. mais est-ce que Ousmane bëgg naa gorowoo ak moom. moom it nee na may na ko. non dégg ma xam nga jabar danga nga daan toog waa ji ñëw ñaan la jabar. Mhm. xam nga bu fekkoon Ousmane Sonko moo ko ñaan jabar. Mhm. Ousmane Sonko moo bëgg a gorowoo ak moom. mais moom moo bëgg a may Ousmane Sonko jabar kon moom moo bëgg a gorowoo ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko bëggut a gorowoo ak moom. tay tey may sa jabar yi dëgg dangay ngay bañ nob la wala. Mhm. tey may sa jëkkër yi dëgg il faut nga xaar ñu ñu bëgg la. waxare parce que. ku ku ñaari sëy boo koy takk kii danaan siiwa ñu maye ko kenn ngéejoo ànd ak moom léegi nag yow mi nga xam ne yaay goro bi mhm. yow yaa maye sa doom kon kay waa ji bëggu la goro yow yaa ko bëgg goro waxa rek lan nga am yaakaar que ni moom moo tax lu mel ni guddi gàmm mu ne may na euh, Ousmane Sonko Adji Sarr Jimbori parce que Sénégal yi ñu ci commentaire waaw xam nga paa bi waaw man dama jàpp ni dafay nekk nit la ko xam ne day dindi stress quoi mais am na ni mu ko waxee ni mu ko waxee toog na may na ko Ousmane Sonko. non non xam nga paa bi moom kilifa la. Mhm. mais pour man loolu ay yëfu comédie la quoi. ak fi mu ko waxee sax moo dul foofu quoi du foofu lañ ko bu doon man la. Mhm. du ma ko waxee foofu mu ko waxee daal wax dëgg yàlla. ba mhm. mais toog jël diw may naa ko ko. dafa xam ne bu bu waxee loolu rek réseaux sociaux bi dinañ ko tiitrer dinañ ko dugal dina am benn coow bu ndaw. xam nga loolu rek la soxla coow li rek mais xam na ni maye bi sax wérul ki ngay maye ma nga ba France ki ngay maye gisoo ko. ndax nee na Sénégal dañoo ay nit ne la may ma jabar. nga bëgg ko maye ci ab tànt mun ta nekk te doo ndeyam doo baayam. Mhm. wax dëgg yàlla du du du sa taalibi. Mhm. loolu da ngay ruube nii rek. d' accord d' accord moom nee na lu tax mu bëgg ko def mais coow li nga xamante ni moo à chaque fois Adji Sarr Ousmane Sonko moom ci loolu la sukkandiku bu bëgg ko may Sonko aussi. non xam nga moom sukkandikuwul ci dara pour may ko Sonko li mu sukkandiku mooy bëgg coow rek coow la soxla rek mais amul lenn loo xam ne nii mun na ko doxal pour may ko Sonko non non man hmm. gisuma ko fa quoi. Hmm. wax dëgg yàlla te xam ngay paa bi bu dafa xam ne moom saa bu waxee dinañ ko waxtaane rek moo tax mu jël ay naan diw may naa ko Sonko may naa ko lii may naa ko laa. Hmm. mais loolu moom wax dëgg yàlla. man jàpp ma nii. wax ju am solo la bu mu war a wax quoi. Mhm. ba pare tamit doo nit ñi du ñu ñëw. Mhm. wax dëgg yàlla soxla waxtaan. Mhm. soxla nga wax leen li nga leen ëppalee ci xam-xam. ba pare nga continuer waat encore di leen wax ay waxu Adji Sarr daal. wax dëgg yàlla waaw parce que Adji Sarr. wax dëgg yàlla desewul boppam ay nit a ko fi dese. ah Adji desewul boppam de ay nit a ko fi dese. parce que Adji Sarr ba mu dawee la xalaatam jeex. léegi ay nit ñoo ko fi dese di ko wutee buzz. di ko wutee promo. di ko di ko di ko di di di si fayat def ko jaasi di ko daggee ay bopp nit parce que le fait que toog nga si plateau. gis nga ne boo nee Adji Sarr mi nañ ko may Ousmane Sonko mu yëngal benn affaire. mais yow loolu rek nga. loolu si jublu loolu rek nga la si jublu mais jubluwu si leneen. loolu la rek pour naqaral ay nit. mais fexewul tuddee Adji Sarr dara ba pare Adji Sarr tudd bi ñu koy tudd nii. Mhm. tax du du am solo bu Adji Sarr am solo ay nit ñooy wax turu Adji Sarr pour wax ko ay nit xor ñoññol ci ay nit loolu dong la Adji Sarr turam arme la boo xam ne dañ koy utiliser pour ay nit mer. ay nit mais nekkul ay nit mer mais nekkul pour wax waxi Adji Sarr mu jëriñ dara. Mhm. turam moo dem ba nekk tur boo xam ne parce que tey xam nga am na léeg-léeg mhm. ay tur yu ñu lay woowee. Mhm. xam nga tey bu ma toogoon nga ne ma yow daal ya léegi per xaw na laa lay woowee da ngay xam ne damay mer. dëgg am na ay tur yoo xam ne dem nañ ba tollu foofu. Mhm. parce que bëri na fii nit lu may def am na lu may def soo toogee ñu ne la mais yow jimbóori rek da ngay mer. léegi tur aji saar pour merloo nit la mais nekkatul lu ñuy wax pour pour doxal réew wala dara wala luy doxal aji saar wala leneen aji saar amul dara lu ko mën a doxal. wan nañu ne dara mënut a doxee fii mhm. moo waral mu nàmm tànkam daw Adja dafa daw mhm. jaarul ci aéroport bi normal de dafa daw beneen réew la jaar mhm. kon Adji Sarr moo la njëkk a wan ni fii nii damay bañ ñu gis ma te fooy bañee ñu gisee la fa soxla woo fa njëriñ amoo fa njëriñ kon ku la fiy tudd soxlawu la pour njëriñ munu cee am njëriñ mais mën na cee ruube defe naa nag way buy këpp gaal yéen a kay làkk ci olof ne kenn du ko jàng ci tefes mm-hmm. bu ay nit gàddoo aji saar boobu ba léegi mm-hmm. di aji saar aji saar aji saar nit ñooñu lañu war a woo laaj aji saar gi ñuy tudd lan lañ ci jublu lan mooy bii bi waaw waaw lan lañ ci jublu mm-hmm. mais jubloo too ci pour régler daray aji saar jubloo too ci pour régler daray Sonko ba pare boo jëlee turu aji saar di ko tudd bu fekkee yow am nga xalaat xel muy xalaat. Mm-hmm. léegi ñi nga xam ni euh, euh, problème mu Adji Sarr ak Ousmane seeni doom da cee loru. waaw ce que ñooñu jàpp nga sa xel ni ba xam boo tuddee Adji Sarr. day yëngal seen xol. Mm-hmm. day yëngal seen naqar wala yëngalul seen naqar. mais yow na nga yëngal naqaru nit pour sa bànneex na nga yëngal naqaru nit pour nga am tur. na nga mm-hmm. yëngal naqaru nit pour ñu xam ne yow yow yaa ngi kooku dañ ko war a bàyyi. Mhm. waa dëgg yàlla. d' accord ah waaw d' accord loolu euh, ah. am na solo bu baax a baax. Ah, bu ñu fa jógee dañuy dem nag ci li nga xamante ne nii vraiment moo nekk actualité jamono ji di euh, seize personnalités yi nga xamante ne neen nañ leen mënatuñu génn ah, fi nga xamante ni moom mooy réew mi ku ci mel ni Gabriel Kane tudd nañ ko ci Fatba Ngom ah Mame jaaw ak ki nga xamante moom mooy euh, Antoine Félix Diome ñoom ñëpp tudd.